suñu combat dafa loolu sax def ci bokk ndax at yi fi passé yëpp bu ngeen xoolee culture générale bi fii dañ koy thème la boo xamante ne nii dañ koy débattre lutte contre violence faite aux femmes te man mii di jigéen man maa njëkk a bokk ci combat boobu te képp ku koy xeex maa ngi sa ginnaaw pare naa pour ànd ak yow pour défendre boobu cause waaw di leen wax ne leen bu fekkee ni viol am na ci wax ji ñun pare nañ pour ànd ak suñu doom justice aussi na ci liggéeyam maa ngi aussi na ci def liggéeyam maa ngi demander excuse bu dente ni wax bi heurté na bu dee wax bi am na ku mu heurté maa ngi leen di jéggalu di leen wax pardon waaw voilà di wax ni que ni Miss Sénégal dañ ko def rek pour dimbali ci suñu ay rak dimbali ci suñu ay doom mu nekk événement boo xamante ni nii dafay contribuer ci développement culturel touristique ak économique moo tax ñu jënd ko mu nekk patrimoine mu existe depuis cent ans donc mënuñu lu dul di ko rafetal muy continuer wasalaam merci beaucoup. maaleykum mbokku Sénégal di tàmbalee sama nuyoo ci kilifa diine yi kilifa aada yi partenaires yi sénégal yépp di leen xamal ni coow li bari na torop moo waral ma def vidéo bi pour génn pour leeral askan wi di leen xamal ni wax bi fi juddu. Euh, xëy na erreur la juum naa parce que euh, dama dégg ñu prononcé mot viol mu nekk lu rëy lu nekk lu garaaw moo tax ma réagiré ni ma réagiré mais jëlewu ko woon benn sens ndax nag euh, ñun euh, en tant que comité suñu combat dafa loolu sax daf ci bokk